waxal ak sa yaay lan moo xew sooba léegi gisuma la nga génn benn yoon ah bébé yow maa yow tosuma demandé lan moo xew lan moo xew nga may laajte man yaa ko gën a xam lan moo xew xam ngeen kii ah kii xam nga ko daba xam nga kii Waaw kii xam naa ko kay fi yàlla xamoo kii yow. xaw ma ko demal xam naa le nouveau marié yaa wóor le fait de me sentir marié sama tànk teg ko sa kaw taabul loo ci mën. yow Aliou quoi yow tu changé la jeunesse. non mais léegi nag foog ma changé parce que dans un instant dootoo ma gisati ah. parce que marié ak célibataire moom waruñu di ça va ça va bien. c'est la police. la police. génnal dina ko dal. ma génnal sama néeg bu ko dama la gis. sans blessé mais aussi ça c'est une chose sama àq bu leen dalee ci. surtout Jibril yëgu ma ko ma ko de. maa ngi ko ko mës a